yooyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy way laago yi ñoom bëgg nañ ñu leen ñu voter ak seen carte d'égalité des chances rawatina les primo inscrits ak récépissé ndax mënu na euh, li ma ciy jëkk wax mooy rafetlu déjà ñoom seen passe-passe parce que ñoom dañoo déposé ministère de l'intérieur demande pour ñu mën a observer élection yi ministre de l'intérieur nangul leen ko donc ñoom mën nañoo observer élection yi waaye li ci président yat ma wax léegi léegi nii dafa di loo xam ne yoon mayewu ko parce que dañu ne document d'immatriculation la seen yéene gi rafet na mais document d'immatriculation la document boo xam ne du lu bees waa direction de l'automatisation des fichiers ñoo koy joxe donc carte d'égalité des chances bokku ci. bokku ci mhm. supervision boobu ni mu demee ñoom pour personne handicapée. waaw xam nga yoon moo maye ne élection bu jub siwee dañoo. nguuru Sénégal ubbi na possibilité pour que nit ñi mën a observer di ay observateurs nationaux di ay observateurs internationaux. Mhm. te fi mu nekk nii ci li ñu jot ci ay demande sax dem na ba ñaar fukki demande yoo xam ne fukki yi fii ci niveau wu Sénégal ak ñaar fukki yoo xam ne bitim réew la jógee bu ñu nee bitim réew nag am na ci yenn yoo xam ne ay ambassades la sax. Mhm. léegi nag ñu ñëw ci document d'immatriculation parce que conseil constitutionnel wax na ko ci avis bi mu nit ñi mën a voter ak yeneen jumtukaay pour ci bëri leerut seen bopp lan mooy document d'immatriculation pour précision. document d'immatriculation dafa di document boo xam ne daaf yàgg na di ko joxe ñii ñëw di bët ut si di d'identité wala ñii ut si passeport léeg nga bëgg am sa passeport fekk sa carte d'identité génnul daaf dafa am benn document bu mu lay jox pour won la ni diw yow la te sa numéro baa ngi nii. document boobu ñëpp ñoo xam ne ñi daan dem euh, passeport daanoon nañ ko am. Mhm. te dafa di document boo xam ne nii lay mel nii lay mel. borom photo bi na ma jéggal. Mhm. parce que euh, photo moo ci ne voilà donc document bi nii lay mel boo ci gisee turu nit ki moo ciy nekk ak numéro boo xam ne mooy numéro immatriculation daaf dafay wane ne kii moo ngi ci suñu état civil kii xam nañu ko. Mhm. doomu diw la ak diw. mooy mhm. document d'immatriculation euh, du beneen document boo xam ne mën nañ ko wane. donc euh, service su daaf moo ngi koy joxe te ñoom fu ñu toll nii tembe ñoo ngi fexe ba ñu mën ko décentraliser bu boobaa du fa du soxla nit koo xam ne sori na biir réew mi soxlaa ñëw fii ba dakaar mhm. dañu ministre de l'intérieur jël na ndogal may nit ñi ñu mën a déplacé wu ci sous préfecture ya ak ca préfecture yi ñoo ñu pour a am document bi. voilà donc ñi ñi doon wax naan gis nañ ko di raaye un peu di wax yeneen document ba ci carte étudiant yooyu donc il faut ñu dem ci. administration pour ñu jox leen document effectivement document bi du document boo xam ne ku ci nekk dafay jóg rek jël sa permis de conduire sax bokku ci. Mhm. du document bu la neex rek nga yëkkati da ngay dem ci service yi nga xam ne préfecture la ak sous préfecture yóbbu sa photo. Euh, ñu génneel la document bi mais document bi am na ci leen loo xam ne. Mhm. lu am solo la ñu yëkkati ko mooy ni. boo yorewee sa récépissé ñëw tamit balaa ñu koy jox dañuy xool ci liste démarchement bi ndax yaa ngi fa mhm. ñu génnee sa numéro parce que sa numéro euh, d'identité moo ngi ca mhm. ñu génnee la numéro boobu tappal la ko mu wóor ne diw la te moo ngi ci bureau sangam moo ngi ci list démarchement bi ñu jox ko document bi ñu bind si ne votre demande d'immatriculation a été acceptée en effet vous bi joxe date bi ak numéro bi. effectivement les direction de l'automatisation des fichiers. moom lañuy jox nit koo xam ne dafay laaj passeport wala nga ut carte d'identité fekk sa carte d'identité génnagul nga war a dem defar lu ji passeport. xam ne délai yi nag gàtt na nga ne kon dañuy dem ci administration pour am document yi kon. maanaam ñi nga xamante ni bindu nañu ton jotagun seen carte ñoom la concerne. effectivement kon message mooy il faut ñu gaawtu dem. effectivement wala administration day liggéey ba jour yi. xam nga administration boo xoolee sax ñun euh, du du ñu sax réquisition pour loolu waaye bu jub siwee du bëccëg du guddi da ngay liggéey non stop. donc ñun yàgg nañ ci loolu moom la ñu xam te bu ñu demee nii ci préfecture yi ñoom dinañu fa liggéey. li ñuy ñaax nit ñi rek mooy ku nekk ci situation boobu am sa récépissé te mu wóor na yaa ngi ci liste yi bu la wóoru tamit boo fa demee du ñu la ko jox te nekkoo ci liste yi. Mhm. parce que yoon dafa am ci li lu mu wax ci ñan ñoo war a mën a wote ñu ci eggee xëy na ñu faram fàcc ko. leneen quoi ba léegi ci précision yi parce que gis nañ ko ci débat yi maanaam récépissé bi moom foog mu nekk sa loxo. waaw récépissé bi foog mu nekk ci sa loxo. te récépissé boobu am na ci leneen loo xam ne nañ ko wax léegi sax mooy ni doyut récépissé boobu doyut foog mu am lu mu àndal récépissé bi bu fekkente ni ñii la foog ñu dem ñu utal leen document bi xam nga ñooñu amuñu carte d'identité amuñu passeport amuñu leneen document bi am seeni photo mooy firndeel ne ñoo ngi ci liste yi te photo ba dina wone ne kiy indi récépissé bi te mu nekk ci liste yi kooku moo nekk ci suñu kanam kooku moom moo mën a wote. Mhm. faw nga nekk ci liste yi pour mën a wote. Mhm. mbiram saisine euh, ñëw ñëw ci yi ba léegi ci retrait carte yi boo ñu doon defal point bi parce que aussi bu ñu ni ñi jotagul seen carte te seen carte génn war nañ koo mën a parce que joxe ngeen fi koroog ay chiffres ne 3 millions yoo 600 mille millions 3 millions de cartes yoo xamante retiré nañ ko muy 70 virgule 36 pour cent sur 5 virgule 5 millions de cartes produites. ñaara ci mën a am ñu gëm ñu wala ñu indi yeneen chiffres yoo xam ne du loolu. Mhm. est-ce na lii. certainement dina évoluer parce que def naa tourner tout la région de Dakar ànd ak tous les préfets ba guddi 23h moo ngi ma fekk barki démb ci commission ya chiffres yooyu ba ñu koy wax man maa ngi sur le terrain lii évolué na parce que mënta wàññeeku lii évolué na parce que nit ñi ba ñu gisee mesure ñu jël te mu wër leen ni seeni carte ñoo ngi ci commission ya fa ñuy wotewee parce que boobu moo gën a yombati parce que bu njëkk ba dañ leen daan wax ne dem leen préfecture sous préfecture te carte yi dañ leen yóbbu teg leen ci seeni bureau bureau wotekaay nit ki ci xawoon na taayal sax ne duma dem préfecture boobu gën naa yomb ci moom kon chiffre yi évolué na mhm. des na ci nit ñi nag képp koo xam ne gëmu ko xanaa nga indi yeneen chiffres yoo xam ne moo gën a leer yi. yeneen waaw saisonu conseil constitutionnel bi aussi débat la ñu ne ñu bëri jàppoon nañ ni jaru ko parce que dañuy violé li nga xamante mooy ket code électoral boobu doon sàkku rek sénégalais bi maanaam électeur bi voté ak carte biométrique bu CEDEAO lan moo tax ngeen jugé opportun rawatina ñu def lii ba saisir conseil waaw dañu koy delloo ki ko initié di njiitu réew mi. la ma ci mën a jàpp ne mooy nit koo xam ne xëy na déglu na njabootam déglu population yi parce que ba mu gisee ni nit ñaa ngi laam-laamee ñii di ñaxtu moom dafa ni li ma gënaloon mooy ne ñëpp mën a wote je pense que bu fekkente ne am na lu ñuy rafetlu mooy loolu la ñuy jëkk rafetlu mais moom def ci jàpp ne aw ma ndogalu ne ñëpp nañu wote naa dem gisi ji conseil constitutionnel mu xelal ma kooku la mu ci wax leer na mooy décision bi ngeen ci am lañ ciy mën a jàpp ne mooy ni conseil décidé na ñun dañuy organiser élection lañ ciy nam mooy ni nit ñi bu ñu ko jàppee woon ni ñu bëri duñu mën a wote con euh, constitution moo ne citoyen boo xam ne nekk nga électeur te nekk électeur du con constitution moo ko wax dañu ne nañu dem sukkandiku ci euh, code électoral nekk électeur da ngay bindu ba pare yore sa carte mais liiral décision bi conseil dafa ni le législateur a entendu mooy ne bu ba muy fixé ne nga yore sa carte ba pare bindu hmm. dafa ni nit ñi ku ci nekk boo nekkee ci liste yi war ngaa mën a wote donc euh, dama yaakaar ni mesure la boo xam ne may na nit ñi ñu mën a wote ñun dañu koy appliquer dañu koy dañuy organiser mais conseil dañ ne du cëram moom nekkut législateur defar ay loi da koy interpréter rek rawatina constitutionnalité loi yi bu fekkente ne dem na ba def nii est-ce du nekk loo xamante ni mu def mu def jurisprudence compliqué ba député yi ni fal sax ñu war a voter loi euh, ñu naan seen njariñ lan laa la. xam nga yoon dafa def ni code électoral dafa suñu système électoral dafa am ñett ña ne benn bi mooy kii organiser. kakay saytu ak justice mu toog ne bu fekkente ni jaarut yoon ma teg leen yéen ñëpp ci yoon man sama cër ak ñun suñu cër mooy organiser élection mm-hmm. liñ ci namm mooy ne nañu fexe nit ñi mën a wote ji képp koo xam ne nag d'accordoo ci ñaar a ngi ci nga gis sena mm-hmm. mais am na ci ñetteel boo xam ne moo tegu suñu kaw ñun ñëpp nañu xool kooku mooy troisième OGE mooy justice ne lii d'accord ñu ci yoon teg ñu ci yoon ñun lii suñu cër mooy ne nañu organiser élection. joxoñ na leen tamit baaraamu tuuma yéen ñi organiser ne peut-être. bu ndewee bu président saisir conseil yóbbee ngeen ko ko parce que yéen ñu organiser waroon ngeen a xam délai yi ba ni Sénégalais yëpp duñ mën a jot seen carte ba ñu bëri sax naan euh, incompétence am na ci bu dee kàddu gi xaw na dis nga jégal ma loolu la yi wax. déet kàddu gi sax du mën a diis parce que loolooy suñu cër gis nga lii di service ak sacrifice bu ñu ci nammee incompétence ña koy wax parce que du sa du du yow sax yaa ko wax mais ña koy yëkkati foog naa ne boo leen seetloo booba ba léegi. gisoo ci kenn koo xam ne wax na ni administration électorale bu Sénégal dafa incompétente ma lay fàttali ne bi ci gënoon a métti moo nekkoon élection locale 2700 listes bi ci nit ñi di dem ku ci nekk yaa ngi yëkkati woon say loxo jàpp sa bopp ne du mën a wéy administration électorale def ko noppi fëgg ci dënnam lañ ci waroon def rek moom la ñu def bii nii nit ñaa ngi réere mbir ne 47 listes la woon boo leen fàttalikoo ñëpp dañoo taxaw ne du mën a ne. te 47 listes yooyu carte d'identité yi moo ngi fexe sax nëbb loo xam ne fonctionnaire moo ngi koy def lii ñuy def nii te Sénégal def ko te ñu organiser élection yoo xam ne 329 millions de bulletin la ñu tas ci biir réew mi mu nekk plus de 2700 tonnes de matériel ñu yëkkati ko def ko xëy na carte yi am na lu mu ci nëbb mais bu fekkente ni ñoom ñoo wax ne ñun dañoo incompétent euh, mën naa kañ de ña nekk direction générale des élections parce que xam naa ni bu fekkente ni am na ay jàmbaar. bu ñu wax sax surtout daaf la ah, parce que ñi ñuy defal carte d'identité yi la lan nga yaakaar ne moo tax ñu yegg si fii kon ba carte d'identité ñëpp jotoon seen bos. ah xanaa nga laaj ko daaf. mais ñooñu waaw ay partenaires lañu te ñoom leer na ma ni def nañu seen këmtalaay kattan mais am na ci yenn yoo xam ne ñoom la ñu koy laaj. Mhm. mais leer na ma ni lañ ci mën parce que du ñoo xam ne ay yaafus lañu ñoo xam ne dañuy taxaw def leen loo xam ne safaan la. Mhm. léegi nag ñi dimanche la vote bi ñu ñu ngi ci euh, minutes yu mujj yi naka lan mën a def ba lépp tegu ci yoon parce que ñu nee nañ sax affaire récépissé yi mën na indi confusion yu ni mel nan lañ def ba ki nga xamante ne tamit peut-être changé nañ bureau de vote am te mu yor récépissé xamut fu muy voté mën a dem directement voté ji te du am jafe-jafe. effectivement mooy ñaareelu mesure ba ba ñu waxee ni nit ñi mën nañoo utiliser seen i récépissé booba boo ma mayee ma jëkk a fàttali ne ñay utiliser seen récépissé récépissé bi rek doyut. fokk ñu indaale carte d'identité buy wone ne même bu fekkante ne bële la woon. nit ki la lii ñu daan faram-fàcce léegi léegi ni mooy nit koo xam ne amut carte d'identité amut passeport kooku bu boobaa fokk mu indi document bii nii. boobu mooy première mesure mesure bi mooy ni du waa daaf au niveau central ñoo koy def dañu ko décentraliser première mesure ñaareelu mesure bi ministre de l'intérieur dafa ni autorité administrative yi dès l'instant que kii nii récépissé am mayu ko mu xam ban mooy bureau de vote am mën na ko may mhm. moom mu xam xëy na fan mooy centre de vote am na ngeen fexe taf liste électeurs yi ci centre de vote yi mhm. may citoyen bi au lieu que muy rang ba egg mu mën a rek vérifier ban mooy bureau affiche ci buntu centre ñoom jot nañu instruction préfet yi ak sous préfet yi ci mën mhm. ñu mën a taf loolu te ñoo ngi ciy xar seen tànk tubéy nga may ma rek ma delloo leen njukkal ñoom parce que ñun dañuy organiser mais la ñu ciy daj ñoom ñoom kese ñoo ko xam te ay jàmbaar lañu ñu. Mm-hmm. mbirum fichier électoral mooy laaj mujj ñu bëri nag nee naan euh, rawatina bi ñu defee refonte refonte beeg ak coow li ñàkk dialogue bi nga xamante ni amu ci woon moo moo juree ñu yëpp nag ban message ngeen lancé ak acteurs yi ba wóolunte am ba lii tamit euh, mu jeex fi dootul am. Euh, waxtaan li ma ci mën a xam mooy ni 16 juin ba 3 août ubbi woon nañu waxtaan yoo xam ne moom mooy. fexe ñu togg code électoral bii nii. Mhm. mooy comité technique revue du code électoral def nañu ko 16 juin ba 3 août. naam am na ci ay kàddu yoo xam ay ponk yoo xam ne déggoo nañ ci mu am yenn yoo xam ne ay réserve la mu amoon ay kàddu euh, ponk yoo xam ne euh, benn pàcc ci ku gi àndu ci woon. Mhm. mooy maanaam mbiri refonte bi mais def nañu refonte bi refonte bi liñ ba ñu ko defee tamit nit ñi dañu ne woon mënoo leen fexe am 4 millions du sotti loolu baax na tamit ñu dellu siwaat ci. ngeen dépassé ko yéen dañu ne woon mënoo leen ko def ñu waxtaan ak chef de l'État boo leen fàttalikoo mooy seen waxtaanu premier décembre waxtaan ak moom nekk na nga fexe siife ci loi bi ne bu ñu eggul ci 4 million nañu utiliser beneen fichier bi. bu yàgg ba booba sax moo nekkoon première fois à la sax ñuy def loi boo xam ne dañ ciy chiffré def ci ay objectif chiffrés mm-hmm. mais ñu jot ci ay ndigal ne nañu ko def ci loi bi. ngeen ñu fexe dépassé 4 million bi dem ci 6 million li ñu ciy mën a wax rek mooy ni du suñu coobare du lu ñu gënal mu am ay citoyens yoo xam ne duñu ñu wote bu ñu sañoon ñëpp mën a wote lañ ciy mën a wax mooy nii am nañu chance su fii Sénégal lu muy metti metti metti yëpp am na ñu yoon goo xam ne mën nañu fa jaar gis nga ñun 2012 administration ba ñu jëlee décision ne dañuy toxal ay bureau de vote def ko délocalisation fonctionnelle toxal ko ci loo xam ne dañu yaakaar ne fii kenn mënu fi wote ñu dem tekk à côté cour d'appel à l'époque Ziguinchor la woon dafa ni ñun yëguñu ko ñu annulé quarante biro de vote di wone ne administration ñun dañuy organiser mais yoon moo ngi taxaw ne lépp li ngeen ci def loo xam ne safaan la ñoo ngi taxaw te li ñu mën décider te ba ñu ko annulé est-ce que administration technique ci baat tegu ci baat vote boobu dañu ko annulé am na ñu ay yoon yoo xam ne moo ngi fi ñu jaar fa leer na ma ni moo gën. fexe kon transparence dina am ñëpp mooy suñu cër moom la ñuy dox. joxe ngeen garanti bi ne lépp dina tegu ci yoon. amuñu beneen pexe. Mhm. parce que ñun mënuñoo sàcc élection. Mhm. muñu moo woteel nit. même bu fekkente ni ñun am nañu droit de vote te dinañu wote incha allah ñun dina dinañu wote am nañu droit de vote mais amuñu pexewu sàccal nit amuñu pexe wu buure urne amuñu pexe yóbbu ba ma may la ci benn gis nga bu ñu génnee ci bureau de vote yi immédiatement dañuy afficher bureau euh, résultat yi te dafa procès verbal bi original bi. bi nga xam ne moom mooy wax ne ñii ñoo gagné lii moo xew ci biir bureau de vote bi bañ nañu sax dañu ne plan de ramassage bi trois jours maanaam le 26 bii dernier dañ koy yeggee Sénat wax ne procès verbal bi bu mu jàdd fenn fenn fenn fudul ne dañu koy yóbbu commission départementale de recensement des votes. Mhm. administration bu ci mënoon a labaj. labaj kon mhm. ñu ñu def ko te amuñu ci pexe. am na solo laaj bu mujj bi bala ñoo tàggoo parce am na solo mooy mbiram 47 amoon na fi coow. def ngeen kii bi ba xool salle de classe yi naka la ñuy disposer yëpp ak beneen bi mooy it mandataires yi est-ce que du xat. Euh, ñoo ngi jógee ci région yi def quatorze région wu dëkk ba rien que pour former waxtaan d'abord ak autorité administrative former seeni membres de bureau de vote ñoom ñu defaat tamit même formation bi ñu dajale lépp loo xam ne plénipotentiaire la au niveau des région et départementales pendant une semaine ñu waxtaan ak ñoom ku ci nekk ñu xamal la lan mooy bureau de vote ak nañ koy organiser naam biir école yi ay salle de classe la am na ci ay zones yoo xam ne 47 personnes bu ñu fa najee naree daje mën na am mu metti mais ku ci nekk wax nañ la naka lañ koy organiser te wax nañu ak ay pléni ak seeni plénipotentiaire te li ci yéeme li ci yéeme mooy ne la ngeen di dégg ni ci biti en tout cas ñun plénipotentiaires yi ñu fekk ci région yi. ñu responsable lañ fa fekk. ñi jël seen décision ne li leen gënal mooy ne nañu organiser mbir yi ku ci gagné mu jàll donc def nañu yooyu formation di am yaakaar ne. bu naree metti xanaa xol yi bu ñu leen boolewee xëy na mën nañoo dépasser le 30. maa ngi sant di la gërëm Bernard Casimir Cissé moom mooy porte-parole direction générale des élections ñoom ñooy organiser kon élection yi ñu ñaan rek yooyu élection am ci jàmm ba ca jamono jooju nag.